asalaamaaleykum wa rahmatullah waa youtube seen dongo sëriñ moo dafay taalibe Cheikh Abdou Hakim mu leen di nuyu di baax di baalu ñépp àq nag ci weeru koor yi ñu dugg mën naan wax ni mooy suñu première vidéo bi def ci weeru koor bi fan yi ñu xawoon a jàpp gennoon nekkoon mbuur moo tax Euh, ñu ngi ci def vidéo waaye nu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di baalu ñëpp àq di leen baal àq di ñaan su borom boo leen jégal tey nag <laughs> ndeysaan tey moom dañ leen indil lu am ama am solo tey moom néegu sëy moo ñu tax a jóg ñi nekk euh, ak seen borom kër di sëy ak moom ba noppi di am ay jafe-jafe yu metti bu àndee tey bu subaa ñu xuloo bu ginnaaw subaa ñu àndal bu ginnaaw subaa ñu werante ci yu doy waar te daal li defar diggante ñaar ñuy sëy secret boobu tey jii moom lañ indi ci taabal ji muy lu am solo muy lu am solo ci diggante bërëm kër ak soxnaam ñii dañuy dugg diggante diggante sëy yi di ci wax ay wax yu doy waar ba tax maanaam nit ki ak boroom ay jafe yu doy waar yenn saa yi gis soxna soo xamante ne day jóg sëy dong ko tax a jóg waaye am ay nit ñoo xam te dañuy ñëw di ko ruuxaleeg borom këram ba du ñu yendu ci jàmm du ñu fanaan ci jàmm te fekk na borom këram bu ñibbisee ñoo koy nettali ay mbir yu doy waar muy dal ci kaw guddi ak bëccëg xëy yu nekk ñu koy def ngir bëgg tas sëy ba wala yeneen ak yeneen wala ngay gis ci yu bari yoo xamante ne nii maanaam day xew ci diggante jigéen ak borom këram nga xam ne dañuy ñëw di ruuxaleeg borom këram ci diggante yu doy waar yoo xamante ni ba ay pexe yu ne di ci am ba borom sax mën na caa jóge tas ci tey nag lii ñu ne indi dafa bokk ci jaam yàlla ndax joxe nit secret boo xamante ne nii buñ koy dee jëfandikoo moom ak boroom këram seen diggante dana neex ba ci jàmm la ñuy nekk ba incha allahu taala moom ci mbégte la ñuy xale dund dootuñu amati benn problème lu dul dund mbégte rek ñoom ñaar ba nga xamante ne seen sëy boobu lépp lu ci bëgg pour ñu am ko dana yomb. kon loolu yaakaar naa lu am solo ci joxe ko luy defar diggante ñaari nit ñiy sëy nga xamante ne seen borom dina ko mën a jàpp na rataxal seen diggante ba ba loo wax sa borom kër mu def ko sa borom kër mu la wax nga def ko loolu loolu loolu dara ëpp ko doole dara ëpp ko doole muy secret bu doy waar tey jii leen ci indil xam naa sama mbokk njóobeen yi moom dinañ eh, xaw am jaaxle ndax mburu mii ñu leen indil mburu mii xam naa <laughs> moom kéemaan la waaye waaye mbir mi li mu laaj mm, moom rek lañ leen indil wax dëgg fi yàlla muy sekkee bu doy waar gis ngeen euh, lii ñu bind nga xamante ne lii ñu bind nii euh, tey jii mi samad euh, samadu wax dëgg fi yàlla doon lu doy waar samadu lañ bind nga xamante ne tey jii maanaam diggante bi ngeen di gis nii ak espace bi ñu bàyyi fii tur yi mooy dugg fii ñaari ñoom ñaar seen tur mooy dugg fii diggante borom këram ak soxna si bu fekkee ne ku góor ki moo koy deflu turam mooy nekk ci kaw bu dee ko jigéen ki moo koy def lu turam mooy nekk ci kaw tur beneen tur bi nekk ci suuf incha allahu taala fan lañ koy def mooy ci mburu mi ci bopp mburu bii nga gis ni ci lañ koy def boo leen gisee ne indi wuñu mburu complètement euh, indi leen miisu mburu wala ay xaaji mburu yu mel noonu dama xam ne amu ci njëriñ parce que loolu lépp amu ci njëriñ bopp mburu bii lañ ci soxla bopp mburu bi ci lay nekk waaw boo ko defee ci digg bi mu am ñaari cat amul njëriñ waaw ci digg bi boo ko ci defee amul njëriñ bopp mburu bi képp rek ci la mën a nekk ci bopp mburu bi kese ngeen koy def boo pare nga doog koo lem defar ko ni nga xamante ne noonu lañ ko a defaree comme exemple lañ leen ci mën a jox bu fekkee ne comme diggante boobu tey jii bu fekkee ne tey jii borom këram euh, mu ngi tudd pap euh, exemple tey jii nga daal di bind turam waaw nga bind turam tey waaw nga bind turam tey exemple pap ak maam maam waaw mu ngi nii tey jii pap ak maam ñoom ñaar ñu bokk di sëy ba nii ngay bind tur bi danga koy bind tur bi ba noppi ñaari seen ñaari tur bi ba noppi nag doo ko tëj fii nag tëj fii gis ngeen ko doo koy tëj liñ ci defaat mooy su boobaa nag lii ngay jël xam nag ñu koy jëfandikoo secret bi xam naa ne moom du du du ñëpp lañ koy mën a kii ndax daanaka doo ko mën a tëb rek joxe ko noonu tasaare ko parce que jamono moo xaw a doy waar te mbir yi dafa doy waar nga def ko nii lem ko bismillah affaire bu yomb la ndeysaan lu yomb yomb yomb yomb boo xam te ne soo ko deferee insha allahu taala bu ko bu ñu ko defee def ko fañ ko war a def muy sedd rek incha allahu taala seen diggante ñaar kenn du ci man dara kenn du ci man dara dara ñi nga koy jël dugal ko ci biir mburu mi ci bopp mburu mi nga koy dugal boo ko lemee nag am na leen loo ci dolli muy lem lem boobu moom lañ jël dugal ko ci biir waaye fan lañ koy dugal ak fan lañ koy denc ak buñ ko dugalee ci mburu mi ba noppi ci lan lañ ko war a def ak fuñ ko war a def ba muy sedd foofu nga xamante ne maanaam bu fa dee sedd fekk mu ngi fay nekk fa di sedd fa te foofu maanaam mën nga ko fa denc bàyyi ko fa a abadan bu yàggee day seey mburu bi bu seeyee lii seey incha allahu taala seen diggante kenn mënatu ko yàq seen diggante kenn mënatu mënatu leen a mënatu leen a dëddale kenn ci ñoom dara seen diggante ñoom ñaar pik ak peel rek maa la wax lii kenn mënatu ci ñoom dara waaw loolu nag moom ku ko bëgg a xam nag info incha allahu taala ah di nga woote nag incha allah boobaa ñu teg la ci yoon mën la koo jox secret bi nga mën koo jëfandikoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf